benn aaya ay alxuraan bopp léeg ma gis nga firi ko waaye firin bu am solo nag ndax da nga koy mandaxle ak weeru koor gi mooy laxat jaakum ndeysaan rasulun min anfusikum mm-hmm. azizun alayhi ma anitum xarisun alaykum bil muminina <laughs> raufan rahimun suñu laaj ji maag xaaj Malick Maodo bu suñu abdu waaw fa in tawalaw faqul xasbiyallah waaw ma demee mm-hmm. euh, gàmm mm-hmm. mu ne ma léegi 2016 firil ñu laxat jaakum mais moom noo koy firee waaw parce que comme day comme day wéy. ah, ah waaw fii naba'ukum. wa naba'u man qablakum. wa naba'u man ba'dakum ilaa min xiyam. waaw waaw noonu la alxuraan dëgg eh, moo tax léeg-léeg boo ñëwee ci koor gi mbaa ci gàmm gi mbaa ci yooyu boo indee la xat jaakum boo ko ko tegee rek daf la koy jox sunu borom daa wax ne maanaam daf doon daf doon présenté classe bi benn professeur bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. boo laajee gars yi jàng école. Mhm. bu ñu amee prof professeur bu bees. Mhm. Euh, directeur bi daf leen koy présenté. Mhm, forcément. ne leen voici votre votre. Euh, nouveau prof nouveau prof professeur. Ah. il s'appelle Galaye Fall. waaw il est deux nangam nangam. ba xale yi commencé ko fan. foofu nag sëñ Maodo. Mhm. bu doon ab jàngalekat. Mhm. gis nga loolu loolu loolu ñu ko présenté ba xale yi faan mhm. moom lay téye ba année scolaire bi jeex malheureusement. waaye day day mujj rek yàqu. <laughs> parce que day day il a doon dañ lay day directeur bi day wax ba te moom moom tam pédagogiquement noonu la war a def présenté xale yi ba ñu fan seen professeur bi mais professeur bi xawee bàyyi rek. affaire bi day wàññi ko quoi. waaw day wàññi ko seetlu woo il faut mu taxaw waaw waaw non xam naa koy. loolu da ko war a con yoon tamit nag la ko yàlla doon defal mu ñëw ci classe bi rek sunu borom ne laqad jaakum rasulun min anfusikum voici votre nouveau professeur il s'appelle Muhammad tudd tur bi nag rasulun la ko tuddee. ndaw li ñu yónni. waaw benn professeur yi nii rasulun moom nag min anfusikum ci ñi gën ci yéen la bokk. ku baax a nii yàlla wax ko. Mhm. wax nga dëgg professeur bii. Mhm. ku baax a ngi nii. min anfusikum néeg yi gën ci seen néeg yi ci la bokk. te yoo xam nga ci dara Abdoulaye baayam kuy baayam Abdul Mutalib Hashim Abdou Manaf Xosey Kilaab Murata Kaab. mun la maam yu toftaloo. Mhm. kon bu yàlla ni ci néeg yi gën ci yéen la bokk. ñu prof euh, étudiants yi ne ko c'est vrai sunu borom continuer ne gis ngeen seen professeur bi. عزيزنا عليه ما عنيتم إنورانس بنتيين موكم متي متخ من يوم يقول سول خالص واو واو فن فن فن تول ديسان حريصنا عليكم بخير تلو بس أنا ين يب يني أتمي بو أتمي جيخ ين يب أم باب واو واو ده ينيم واو بالمؤمنين رؤوف الرحيم موفي إلى فينا نملي نيرمي متخ من يكتشف نيفو بنتولك Euh, vrai euh, euh, élèves yi ngeen lii non sëñ Maodo xoolal rek li suñu borom wax foofu léegi nag yéen étudiants yi laay waxal fa in tawallaw <laughs> su ngeen jëlul cours bi ni ko war a jëlee. Mhm. jëlu leen njàng mi au sérieux dama ko wax nag faxul xas bi man danaa la fay ñoom nag ma def ak ñoom lu ma xam. laay yow te nga waxta ba faynta wala faqul xasbi yàlla waaw faqul xasbi yàlla parce que su boobaa nag kon ñun étudiants yi am professeur bu mel nii sëñ Maodo duñu war a def daañ war nañoo daw cours déedéet war nañoo tardé cours war nañoo recopier mm-hmm. non yooyu yëpp waruñu ko def